mu ne inal muttaqin naka ñi ragal yàlla nag fi maqaamin ñoo nekk ci maqaama ya aminin yoo xam ne yu ñu wóolu la fi janaatin ca aljanna ya waaw yoo ni nag teew nde yelbasuuna ñu ngay woddoo min sundusin ci laa sundus la wa sabraqin sundus mooy baraaye bi nga xam ne dafa sew dafa sew istabraq mooy diibaaj bi nga xam ne dafa tal muy baraaye bu tal rek ak bu wees mooy sundus ak istabraq mutaqaabiliin ñu di way jàkkarloo kazalika naka noonu wa zawajnaahum ñu denceloo leen bi xuurin ci jigéen ñoo xam ne way weex lañu ay bët aynin ñu di way gëtu maanaam ñu dijj di ay bët te weex la ko te doxuna ña ngay woo fiyaa ca aljanna fi kulli faakitin bépp koy téef aamine na ñu di way wóolu laa yaduquuna duñu mos fiyaa ca aljanna almawta dee illa almawtata lu may dee ga woon rek al ula gu waqaa musal leen adabal jahim mbugalam safara fadlan ngir ngëneel min rabbik mu bàyyee ko ci sa borom dalika loolu kat huwa moom alfawzu moo di texe alazim gu daa ji mag fa innama yasarnaahu naka ñun yàlla ñoo jàppandal alquran jii bi lisaani ki ci sa lammiñ laallahum ndax ñoom yetadakkaroo nañu waaru fartaqib muñal muñal te fuglu te xaar innahum ñoom ñoom it murtaqibuna way fuglu lañu way xaar lañu suratul jasiyati moom it màkk la wàccee xaa miim tanzilul kitaabi wàccub téere bi mi ne laay bàyyi ko na ci yàlla al aziz yi ku daa ji not ci kàttanam al hakim yi ku daa ji xarala inna fii samawaati naka nekk na ci binduk asamaan wala dég suuf laayatin kawtéef ñaan li nga xam ne ñoo gëm yàlla wa fi xalqikum nekk na ci bind gi mu leen bind wa maa yabussu ak la dana tasaare ko min daabatin ci aji dox ci suuf laayatin kawtiir li qawmin ñaan nit ño xam ne yuqinuuna danañu wóolu dajeeg seen borom waxtilaafi leyli wuutale gi mu wuutale bëccëg guddi gi wa naari bëccëg wa maa anzala ak la wàccee na ko laaw yàlla min asmaa yi ci asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa mu dundal bii ci moom ala da suuf baada mawtiha gannaaw ak dee am wa tasrif riya ak soppi gi muy soppi ni ngelaw yi benn mu sedd wala mu tàng jóge ndeyjoor càmmoñ penku sow yëpp la ayatin kawteef la kenn xamul ngelaw lan moo ko wal ba muy ñëw kon kawteefu ngoog li xaw min ñeel nit ñoo yaqiluun dañu am xel tilka loolu ayatullaahi mooy a kawteefu yàlla natluwaa na nga koy jàngalee ki ci yow bi dàq ci dëgg kon nag fa bi ay xadisin ana ban waxtaanati baadulaay gannaaw wu yàlla waayaati yi ak wu ak kawteefam yu mi noonu la ñuy gëm bu fekkee weddi nañu bii bàyyi na loolu waylun li kulli affaakin asiim li tax li alquran wàcc ci moom bari na lool li wàcc ci moom ci ay alquran di ko jajj bari na waaye yàlla dogal na ne kuy texee di la moo tax ba tuubul Nadir ibn al ab jula la woon day dem Iran di dellu ku mën a jàng la mën naa bu demee mu jënd xissa yi seen film yooyu ay rustum ak yooyu bu ñëwee toog ci penc mag di ko liiral gaañi naan lii de la Muhammad di liir rek naan yàllaa ko yónni Nadir ibn Xaaris yàlla ne kookoy ku mën a fen moo tax mu ne wa way waylun pour wicca safara li kulli aftaakin ñeel na bépp duudalaakoon atimin ku di aji bakkaar yesma koo xam ne dana dégg ayatullahi alquran yàlla tutla dee fi jàng ko ali ci moom su ma yasarru topp mu nuur rek mustakbiran mu réyréylu ka an lam yasmaaha daanaka dégg ko fa bashiru xamal ko bi azabin ci mbugal alimin mu di aji metti wa ida alima bu xamee min ayatina ci suñu kawteef cheyan dara ittaxasa mu jàpp ko usa mu di luñu yejji ulaayika ñooñu lahum ñeen leen azabun mbugal muhinun mu daal di a leen min waraayam nekk nañ ci seen gannaaw jahannam safara wala yuxni du jëriñ anum ci ñoom maa kasa boo lépp lu ñu fàggu cheyen tus wala mattaxadu du caagin la ñuy jàpp min doonillaahi awliyaa ñuy méngoo seen mbir wala ñeen na leen azabun mbugal azimun mu daal di màgg haza alquran ji ku dën jub la wala dina ñi nga xam ne ne kafaru we dinañ bi ayat rabbihim ci alquran yi na leen azabun mbugal moo xam ne min min rijzin ma ngi bàyyeekoo ci xeetu mbugal alimin moo xam ne aji métti la mu bàyyi na loolu mu ñëw ci ngëneelu yàlla ci doomu aadama te doomu aadama bu ko doon lim du ko mën a jeexal ndax ay ngëneel la yoo xam ne yu yu moo tax mu ne allahu yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne saxara tàggan na mu lakum ñeel leen albahra géej li tëjee ngir muy daw alfulku gaal fii du ngir mu daw gaal gi fi wi ca géej ga bi am ri kattanam ak ndigalam wala tabtaxu ak ngeen di dugg ci gaal gi bay sàkku ji min fadli ci ngëneelam wala alakum ndax yéen tashkuruna ngeen mën a sant yàlla wa saxara yàlla tàggat lakum ñeen leen maa fi samawaati li nekk ci asamaan wa maa fi l ardi ak li ci suuf jamian lépp minu bàyyi ko ci yàlla inna fi dalika naka aji nekk li ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yatafakkaroon danañu xalaat xul waxal li la dina ñeel ñi nga xam ne amoonoo gëm nañ yaxfiroo ñu baal ñu balu ñu ñaan njëggal li la dina ñeel ñi nga xam ne la yar joona duñu yaakaar ayaamallaahi xew-xew yàlla yi duñu yaakaar dajeg yàlla ci xew-xew yooyu li jisiya ngir fay yow man bés xawman aw nit bi maa kaanoo ci liñ nekkoon yëg si bone di fàggu ko loolu luñ yaakaarut man amila ku liggéey na saalihan jëf ji yiw fa li nafsi ñeel na boppam wa man ku ñaawal na it jëf fa boppam la koy def suma turjauna def ne delloo leen ila rabbikum ngeen jëm ci seen borom bay na loolu mu ñëw ci wattandikuloo bani israil wattandikuloo julin ñi ñu mel ni yahudiya ñu mel ni yahudiya ci ñàkk topp seen ab téere ñàkk topp seen aw yonent ñàkk jëfandikoo seen diine loolu lay wax ne wala qad aataynaa joxoon nañ bani israila alkitaaba téere a wal xukma ak atte ba wa nubuwata ak yonent ga wa razaqnaahum ñu wërsëgal leen mine tayibaati ca waytee yi fadalnaahum ñu gënal leen alal alamina ci ñu jox leen bayinaatin min al amri ci ndigal la fa maxtalafoo wuute wuñu illa min baadi ma jaahum lu mooy gannaaw bu dikkalee leen al ilmu xam-xam bax yan ngir réer baynum seen diggante inna rabbaka nag sa borom yaqdi day atte baynum seen diggante yowm al qiyaama fi ma kaana ci leen fi mu nekkoon yaxtalifoon di wutee fii ci loolu su ma jaal naaka yow it yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu def la ala shariatin nga nekk ci yoon nekk ci sharia min al amri ci digle ak tere fattabiaa toppal ndigal yàlla li wala tabi bul topp waawa alladina bànneexi ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu innahum ñoom lan yuxnu su fekkee topp nga leen day bu la yàlla jàppee ñoom lan yuxnu duñu jëriñ an ci yow min a ci yàlla cheyan tus wa inna dalimina naka way tooñ yi baadum leen ci ñoom awliyaaw baadin ñoom méngoo ñenn ñi wallahu yàlla waliyul muttaqin yàlla moo méngoo mbiri ñëpp ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla hada lii nay nettali basair ay ne la dinaasi ñeel nit ñi hudan njub la wa rahmatun yërmande la li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yuqinuuna danañu wóolu dajeg yàlla am xasiba ndax dafa joortu lajina ñi nga xam ne itaraxoo sakku nañu a asayaati yu bon ya ndax dañoy joortu buñ ko joortoo kon ñu ñàkkam xel ñu joortu ñu def an najaalum ñu def leen kallazina nekke ñi nga xam ne amunoo gëm nañ wa amiloo ñuy jëf asaliyaat yi farata yeeg naafile yi saa woon aju yem la maa yaawum seen dund wa maatum seen dee bu fekkee yi leen saa kon bon na maa yaxkuman li ñu attee xalaq bi na la law yàlla samawaati asmaan wala rek suuf bil xaqi ci dëgg wala tijza wala tijza ak déefis fay kul nafsin bépp bi maa kasabat ci la mu faggu waxum ñoom laa la mën a défut tooñ leen ba lu waay am rek na xam ne moo ko liggéey amul kenn ku yàlla di tooñ ba jox la loo xam ne moomuloo ko wala am loo def mu ñàkk la ko jox bàyyi na loolu mu ñëw ci lenn ci seen jëf ju ñaaw ak seen ak fa yowmal qiyaama mu ne afarayta ndax dooma solo maa ni taxada ku jàpp na ilaahu yàllam hawaahu muy bàññee rek jël lu ko neex rek def ko mu nekk yàllam daldi jëlu la neex rek fal ko sa fal nekk sa yàlla benn yaa tabax wala yaa ko liggéey wala yaa ko defar wa adallahu réeral na koy laaw yàlla ala ilmin ànd wa xatama yàlla moo kaste linkaañ ala samihi ci déggam wa qalbihi xolam wa jaala mu def ala basari ci ci gisam rishawatan muraay fa man yadihi ana kan moo koy jubalati min baadillahi gannaaw yàlla afala wa qaalu ñu nga naan maa ngi yedde dee ilaa xayaatuna lu mooy suñ dund bi rek bi ci bidaa ji jege ci àddina na mootu nu dee wa naxyaa nu dekkaat dekkiwaat déedéet comment yow li ku naa du àlag ñu ila daaru lu mooy jamono jamono moom ku fi yàgg rek da nga dee waaye ku dee jeex nga waaye doo del si waaye ñun kay nu dund nu nu dee nu dundaat déedéet comment yow li ku naa ila daaru loolu lañu ñu gëm wa maa lahum yàlla ne ñeeru leen bi zalika ci wax jooju min ilmin amuñ ci benn xam-xam in hum deen ñoom ilaa yazunnuuna lu mooy dañuy joortu wa ida tutla dem def na jàngaalim ci ñoom ayaatuna suñu alquran bayinaatin mu nekk jaaji leer ma kaana nekkul xujjatum seenu lay ilaa an qaalu lu mooy ñu wax ni iitoo indi leen bi bàyyi naa suñ bàyyi in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu qul waxal ne allahu yàlla yuxyikum moo leen di dundal su ma yumeetukum mu rey leen su ma yejmaakum topp mu boole leen ilaa yawm alqiyaama laa rayba de sikk fii di nekk ci walakin waaye ak tanaa si li gën a bëri ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu walilaahi ñeel na yàlla mulku samawaati moom lekk asamaan wala dég suuf wa yawma taquumu bés bi taxaw saatu bés pénc soo may seen keroog yaxsuru lay perte al mubtiluun way yàq ya wa taraa gis nga kulla ummatin bépp xeet jaasiyatan ma nga boof ca kanam ay jëfam ak ca kanam ab yonentaam kulla ummatin tudaa def na ko woo ila kitaabi ya jëm ci téeréem naa leen al yawma tey na def na fay leen maa kuntum li ngeen nekkoon ci àddina taamaloon di def ko ñu ne haza lii de kitaabu naa mooy suñ téere moom day waay yéen te ku day wax rek aleykum ceen bi la di ci dëgg téere bi day waay dëgg rek lay wax du sos du yokk du wàññi innaa ñun yàlla ku naa nekkoon nañ na samsixu di sotti di sotti maa kuntum lépp li ngeen nekkoon taamaloon di def ko ñu ñoo ko doon sotti ci benn registre benn téere di ko garde fa ama léegi na ndaal ñi nga xam ne amuñu gëm nañ yàlla waa amiloo ñu jëf ak salihaat yi farata yeeg naafile yi fa yadxiluhum dana dugal seen borom fi rahmati yi ci yërmandem zalika loolu huwa moom alfawzu moo di texe almubiinu guddaay ji biir waa ma léegi na ndaal ñi nga xam ne ko weddi nañ awalan takkun ñooñ day dañ leen di wax naan ndax nekkutoon ayat yi sama alquran tutla dee fi jàng ko aleykum ci yéen fastakbartum ngeen rëy rëylu wa kuntum ngeen nekk qawman diw nit mujrimin ñi di way def bakkaar fa ida qiila ndem waxeef na ne inna waadallahi naka delloo yàlla xaqun dëgg la wa saatu bis pencit laa rëy ba dee sikk fiyaa ci dikkam xultum ngeen ne ma nadri ñun xamuñu ma saatu lan moo di bés penc ñun xamuñu ko inna dunnu naka den ñuy joortu ilaa dannan lu muy joortu bu maanaam du den ñun bi mustayqinin ñu di way ñuy ñuy wóolu loolu wa badaa feeñ na lawum ñeel leen sayaati ma amiloo way ñaawi li liggéey nañ ko wa xaq wàcc biim ci ñoom maakaana lu ñu nekkoon yastahziuna di yëjji ko waqiila waxeef ne al yawma tey nag muy bés penc nan saakum ñu nit dañ leen di fay ndax yàlla du fàtte nan saakum dañ leen di fay kama nasitum nag ngeen fàtte woon liqaa yawmikum day rek seen bés bi azab bi wa mawaakum seen takkuwaay naaru mooy safara wa di ñeel leen min naasirin ci way dimbale daalikum loolu la seen li ko waral bi annakum ndax yéen ittaxatum jàppoon ngeen mu di lu ñu yejji wa a war leen alxayaatu dund bi adduniyaa bu daa ji laa laa yuxrajuuna déefut génne leen minha ci safara wala hum déen ñoom it yustahsabuuna dee fi yedda leen te bàyyi leen yedda leen ba ba sottal baleen loolu ko am buur ndem saar wi làq na ci ay kawtéef yàlla lu bari mu ne ndem saar wi làq na ci yàlla génne na ci ay xéewalam yu bari yu mu jox nit ak gënal gu mu gënal doomu aadama ci yeneen xeet yi ndem saar wi di lim ay kawtéef ci kawnu bi ak i tegtal ci gox yi ci ñuy tegtaloo am ak yàlla nee ndem taar wi saxaloon na ne ku liggéey lu baax danañ la fay ku liggéey lu bon danañ la mbugal ndem saar wi loolu yépp wax na ko kon ci mujj kuy wax ay xéewal da ngaa war a delloo njukkal ka doon joxe xéewal yi rawatina bu fekkee ki doon joxe xéewal yi mu yelloo tagg wu rafet yelloo melokaan wu tedd yelloo ñu jaamu ko bind asamaan bind suuf bind doomu aadama kooku mooy am kibriyaaw kooku moo am ak mag kooku jëmmam ja moo mag te sell lépp lu di sori ko kooku ak amam amul tàmbali ak mu jëm amul fu muy jeex kooku moo sell ci gépp wàññeeku kooku mooy borom kibriyaawu tabaraka wa taala moo tax mu ne kon mu mottali ay waxam loolu pour jox kooku njukkal ndax li nga xam ne moo am kibriyaaw yonent bi nee na <clears throat> alayhi yàlla nee na ko waxal nit ñi ne alkibriyaawu ridaa yi man yàlla kibriyaawu muy rëy rëylu rëy ci boppam man yàlla sama mbubb la ku ma ci fekk nag ci sama mbubb su ma la ci fekkee nga xam te it ku ko natt mu ëpp ndax amul kenn kuy jéem a rëy rëylu lu may mbubb moom ëpp na la lu tax waxtu ngay def tabaxtur di rëy rëylu ci benn néeg ci génn kër ci benn réew ci benn dëkk ci genn kër ci benn néeg ci benn lal ci benn béréb fa naan tekk rekk nelaw fa doo mën a yëngu doo moomati ci ci sa bopp dara te it buñ ñaari fan lekkuloo rëy ga dal di jeex yelwaan yi sax da ko man yelwaan yi ma nga rëyoon da nga ko mën kon nag kon moom bu bëda la ëpp da nga koo da nga koo wut te it boo lekkee loolu nga lekk bu ñu toogee fii balaa gannaaw ëllëg su génn rek nga daal di bëgg a alko soo maree di bëgg a sooy naan doo mën a continuer naan sooy naan naanal rek bul baax léegi tey nga alko booy lekk lekkal bul baax léegi nga daal di alko kon yow sa lépp ak manki la kon rëy def laa warut koo xam ne sa njëlbeen toqante man yuy la sëg muj midd kenn soxlawul ñu faf sànni gasum ko suul le moo xasewal nit ñi mu ne kon fan nga jëlee ak ak réeréelu waxtu nga nekkee ci sa digg doole foo toll mel na mbusum tojalan ci sa kanam nga uuf ko foo dem yóbbaale ko mu ne kon kibriya warul la mu ne kon nañ delloo njukkal ki nga xam ne moom rek moo yelloo ak kibriyaaw loolu lay wax ne fa lillahi ñeel na yàlla alhamdu cant rabbi samawaat kooku mooy borom asamaan wa rabbil ardi kooku mooy borom suuf wa rabbil alamin kookoy borom bindee bi mënoon na wax ne rabbi samawati wal ard yëpp wa rabbi naas waaye bu ci nekk da koo indi rabbu ndax dañoo bokkul yàlla mooy rabbi samawat mu di mbindeef mu nekk ci kaw ñu yenu ko te gisoo li ko yenu mu dim téeg moo xam ne du bënn du maxe du yàqu nga fekk ko fi ba fi ñëpp fekk ko fi bàyyi ko fi xamoo kañ la te xamoo kañ lay jeex moo tax mu waxal ko mooy rabbu samawaat mu ber ko daal di ne wa rabbul ardi ndax su ko ba mbëstanoon da nga naan rek asamaan ak suuf te ku dafa am mbiram boppam mu ne la wa rabbul ardi waxoon na la neen boobu di féey ci jaww ah, fadaaw la nihaay yi boobu wa rabbul alamin mooy borom bi def yëpp wala woo ñeel na kooku alkibriyaawu ak réy réylu fi samawaati ci asamaan ndax mooy def mooy dindi ku def mu laaj la lu tax te moom li muy def kenn du ko laaj lu tax kooku am alkibriyaaw fi samawaati wal ard ubu yàlla al aziz mooy aji na ci kattanam alxakim mooy aji xarala ci njëfteew allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكشف عن الحجاب كما كشفت عنه الى الباب الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الايمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاشياخنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم انصرنا ولا تنصر احدا علينا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا واحفظنا ولا تكلنا الى غيرك خذ بايدينا يا رحيم يا رحمن يحفظنا احفظ بلادنا وعلماءنا وحكامنا اللهم احفظنا احفظ بلادنا وعلماءنا وحكامنا اغننا بحلالك an xaraamik wa bi fadlika amman siwaak wa bi taatika an maasiyatik ya rahim ya rahman allahuma salli ala sayidina muhammad alfatix lima uliq alxatim lima sabaq naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim bur ne suratul aqaafi saaru tundi beeñ ya al mooy tund yoo xam ne beeñ rek moo fa nekk saar yi la wàccee mook ay moromam yëpp saar boo koy tënk da naan day wax ci saxal bennug yàlla dàqal koy bokkaale dëgëral na yeneen bi yàllaa ko yónni lépp lu mu woote ci yàlla dëgg la tontu ñu doon wutalantal mbir ma ci alquran ak yonente ga defal yonente yi dalal xelam wax doom nu ci baayam mu léeb ay léeb ci mushrikoone yi wane it ne jinne itam omatu na jinne ci boppam duggoon nañ ci lislaam daal di saxal ne dekki am na saar wi mujjee nag ay lay biir yu cher yum jëlee ci jëmee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak képp kuy woote jëmee ci yàlla loolu lay wax mu tàmbali ci saxal benn yàlla ak dàqal ko bokkaale xaamim tanzilul kitaabi wàccub téere bi min laay bàyyeekoo na ci yàlla al aziz ku daa ji not ci kàttanam al hakim ku daa ji xarala maa xalaq naa binduñu samawaati asmaan yi wala ard ak suuf wa ma baynahuma li ci seen diggante illa bil xaqi lu mooy ci dëgg wa ajalin ak dig musamman buñ tudd wa léegi nag ñi nga xam ne kafaru weddi nañu amma unziru ci la waareef na leen ñoom muariduuna amma unziru way dëddu lañu ci la nga xam ne ñu leen cay waar ak ragal loo kul waxal ne araytum ndax du ngeen ma solo maa tadduxuuna li ngeen di jaamu min dooni laahi te duut yàlla aruni wan leen ma maza lan xalaqu lañu bind min al ard ci suuf am lahum ndax ñeel na yàlla yooyu shirkun ak bokkaale fi samawaati ci asamaan bu fekkee loolu am na iitoon yi indi leen ma bi kitaabin ci benn téere bu ko bind min qabli haza bu jiitu bile manu leen ko aw asaaratin ngeen jox ma benn jeexit min ci xam-xam in kuntum dem nekk ngeen saadiqin di way dëggu ci li ngeen ne yàlla am na morom wa man atalu kan moo gën a réer mi man yeddoo kuy kuy jaamu min dooni laay lu dul yàlla man koo xam ne laa yastajibu du wuyu la woo ñeel ko bu ko doon woo it ilaa yawm alqiyaama uhum te ñoom ci seen woote ba kooku nga doon woo ak di ko jaamu te duut yàlla du la amal njëriñ te moom sax yëgu ko woon wa ida xushira ndem fangeef na naa su ñi kaanoo ñi nekk lawum ñeela leen ñi leen doon jaamu aadaan di noon wa kaanoo te nekk nañ sax kaafiriina di way weddi bi ibadatihim ci jaamu gi ngeen leen doon jaamu kon ba yow jaamu yàlla mi ko du weddi mu ñëw ci ñi nga xam ne doon wut ay lënt ci yónnee ku yónent bi loolu lay wax ne wa ida tutla ndem def na jàng alim ci ñoom aayatuna suñu alquran bayyinaatin mu nekk di aji bir qaala wax la si ne ñi nga xam ne kafaru weddi leen xaq ci dëgg gi lamma jaahum ba mu dikkalee leen luñ ca tontu haada lii day sexrun jabar la mubiinun guddi aji bir ñu daal dina li day ak njabar la goo xam ne gu wóor la am yaquluun wala dañuy wax ne iftaraahu dudal na ko yàlla kul waxal ne in iftaraytuhu ndem dudal naa ko yàlla day bare maan moom rek su ma jàppee fala tamlikuuna du ngeen moom lii ñeel ma min allahi ci yàlla cheyan dara uwa yàlla aalamu moo xam bi ma tufiduuna la da bëbb fii ci moom bëbb ci mbir mooy dugg ci ak mbooloo kafa doy na bi ci yàlla shahidan di aji seede bay ni suma diggante wa bay ni kum ak yéen uwa yàlla alxafuur mooy aji bale arrahim mooy aji yërëm kul waxal ne su fekkee li ma ne yàllaa ma yónni dafa yéemu ci yéen it day maa kuntu man nekkuma bidaan di aji sos ko min rusuli ci yéen it duur man la njëkk yónni wa ma adri xawma it maa yufaalu la def naka def bii ci man wala bikum la yàlla nar a def ci man xaw ma ko li mu nar a def ci yéen it xaw ma ko man daal in attabiu din may topp illa ma yuxaa lu may la def na wax yu ko ilay jëme ci man wa ma ana dem man ila nazirun lu may ma nekk daa ji waare mu binun ku daa ji bér jig waare kul waxal ne araytum du ngeen ma solo in kaana bu nekkee téere bi may jàng te ngeen weddi ko bu fekkee dem nañ ba mu wóor ne min indillahi ma nga bàyyi ko fa yàlla te yéen wa kafartum weddi ngeen bii ci téere bi wa shahida seede na shahidun aji seede min bani israil ala misli ci kemam mooy bani israil yëpp ñoo seede ne man maa yonente bi ñëw ci mujjug jamono fa amana te mu gëm yéen wastakbartum ngeen réeréelu ba weddi kon day réer ngeen te inna laa yàlla moom tooñ ngeen inna laa yàlla moom la yaadi du jubal alqawma nit ñi azzaalimiin ñi di way tooñ wa qaala wax na li dina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ li dina ñi nga xam ne amoon gëm nañ ñu ne waaye loolu muy wootee du dara su baaxoon kenn ñu ci jiitu aw kaana bu nekkoon loolu xayran diw yiw fa sabaquuna ilayhi duñu fa jiitu waaw wa islam yaatadoo ndax jubuñu rek moo tax islam yaatadoo bi nga xam ne ñoom jubewuñ bi ci loolu rek moo tax ñu ne duwutu yiw ndax bu doon yiw kenn du leen ci jiitu wante fa sa yaquluun xalte nañoo wax ne haza lii de aw nar la mu qaddimun wu daa yàgg wa min qablihi lu ko jiitoon yi nekkoon na fa kitaabu Moussa imaaman di ilimaan di ñuy roy ci moom muy téere bu wàcc beneen wàcc téer di roy ci moom wa rahma muy yërmande paasa lii nag kitaabun téere la mu musaddiqun boo xam ne aji dëggal la li ko jiitu lisaanan waaye mu ngi ñëw ci lammiñ arabiyin wuy arab li yundira ngir ñu waar la dina ñi nga xam ne dala moo tooñ nañ wa bushra mu nekk mbég lil muhsinin ñeel ñi nga xam ne ñoo rafetal seen ak jaamu yàlla ina léegi naka ñi nga xam ne ne xaalu wax nañu rabbuna suñu borom allahuma yàlla suma staqaamoo topp ñu jub ñooñu bu ñuy dee falaa xawfun deen ragal alayhim di nekk ci ñoom wala hum deen yum yaxsanoon nañuy tiit ulaayika ñooñu asxaabul jannati ñooy boromi aljanna xaalidin ñu di way sax fiyaa ci aljanna jazaan mbir mu nekk di pay bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaluuna di def ko mu ñëw ci doomu aadama diggante ñaari ñaari mbir yu am solo ki mooy ki ko bind kenn ki mooy ki ko jur ñaar yi lañ la booleel ku ci nekk am solo na nga toppatoo bind gannaaw ga nga toppatoo nag ki la jur moo tax mu ne wa wasay naa dénk nañu al insaana nit bi waalidayhi ci ñaari way juróom ihsaanan mu def ñoom njekk ndax ndey ji xamalatu ëmb na ko ummuhu yaayam kurhan ci métit wa wadaatu mu jur ko kurhan ci métit fa hamluhu diirub ëmb ga fa fisaaluhu ba nampal ka ba mu fer salaasuna ñett fukk la shahran ci weer ulamaa fuqaaw yi ne kon bu yàlla waxee loolu kon nag ku takk jabar ngeen toog juróom benni weer mu am doom rek doom ji yàkku ju ñoom foofu lañ ko jëlee ñi ndax ñu ne ëmb geeg nàmpal gi ba mu ter fanweeri weer la te yàlla wax na feneen ne yaay yi nañ nàmpal xawlayni kaamilayni mu ne xawlayni kaamilayni nag ñaari at yu mat muy ñaar fukki weer ak ñeent soo ko dindee ci fanweeri weer juróom benn ciy def kon nag ku takk jigéen mu am juróom benni weer bu juró yow la ata isa balaxa ba mu jotee at suddaub dëgëram wa balaxa doom ji jot arbaina ñeent fukk sanatan ci at mooy lépp lu góor di man bu ko mënul dootu ko man ndax am na ñeent fukki at qaala mu ne rabbi yàlla awzi'ni dénk maa ashkura may sant ni'mataka say xéewal alati yi nga xam ne ana amta xéewal nga ko alayhi ci man wa ala walidayya ak ci sama ñaari way jur wa ana amal la may def saalihan lu yiw fardaahu loolu da nga gërëm ko wa aslih yan na nga yéwénal lii ñeel ma fi duriyat yi ci samay doom inni man tubtu tuub naa ilayka jëm ci yow wa inni man min al muslimin bokk naa ci way omatu ulaayika ñooñu la jëna ñooy ñi nga xam ne ne taqabbalu danañu nangu anum ci ñoom guddi bëccëg wa innahum seetaan yooyu fa yasudduunahum danañu fekk leen ani sabili walis yoonu yàlla wa yaxsabuuna ñu ngay joort ne annahum ñoom muhtaduna way jub lañ fekk jubuñu ndax seetaane soosu day rafetal ñoom ci ñoom lépp lu bon moo rafetal ko bañ yaakaar ne ñu ngi ci njub ma ñu nekk ci nag hatta iza ba ñu dikkal ñu fii ci àllaaxira nag ba ñu jàppaleen xaala mu door a wax nag ne yaa layta bayni wa baynaka yàllante nekk sama digganteeg yow ab soriwaay boo xam ne bu'dal mashriqayni soree na comme soreg ñaari penku yi fa bii sa ndeke bon na alqarinu aji lënkoo ji ci rek la du jëriñ dara yàlla ne walan yanfaakum du jëriñ leen al yowma tey id dalamtum ba ngeen tooñee annakum yéen kay ci ak seytaane yi bokk fi la azaabi yi mu bàyyi loolu mu ñëw nag di dëgëral yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dëgëral ak dogoom ne li nga nekk moo dëgër jàpp ci bu ko bàyyi mu ne afa anta ndax yow tusmixu yaa mën a déggal asumma aji tëx aw taati wala yaa mën a jubal alahum yaa aji silmaxa loolu doo ko mën oman kaana ndax yaa mën a jubalit ku nekk na te daraalin ci mu beneen guddaay ji sori fa imma nadhaban na su fekkee demee nanu bika ci yow nee na yonent bi yàlla nee ko su ma la yóbboo nga woy si ma bàyyi ci àddina bu ci tiit baal ak ñun kenn rawuma de fay naa ñun yàlla mun taqimuna way nara fayu lañ minum ci ñooñu baal ak man rek bu fekkee nag gaawuloo dem nga yàgg fi bee aw nuriyannaka nu won la lësi la nga xam ne waaj naa um dëgal nañ leen ko su boobaa nga wóolu nga xam nag ne fa innaa ñun mukk tëdiroonu ñaam kàttan lañ alayhim ci ñoom fastamsikku nag jàppal bi lisi ci li nga xam ne wax yi wax yow na ko ilayka jëm ci yow gis na ko yow de ala siraatu yaa nekk ci yoon mustaqim wu daa ji jub wa innahu naka lii ñuy jàng tey la dikrun ak waar la laka ñeel la yow yonent bi wali qawmika ak saw nit it fa sawfa tusaluun bu ngeen ci waaruwut nag bés dana ñëw ñu laaj leen ko ndax ñëwoon naam déet moom téere bi wasal laajal nag man arsalna yi nga xam ne yónni nañ leen min qablika ñi la jiitu min rusulina suñu yonent na nga leen laaj ba xam ajaal naa ndax defoon nañ min doon rahmaan yi jeneen yàlla ju dul yàlla aliyatan ñu di yàlla yubaduuna yooyu deef na jaamu leen boo leen laajee dañ la wax ne loolu mosul am kon nag yow yaa ngi nekk ci dëgg bul yox yoxiiti ci lool bàyyi na loolu mu ne ma ngi lay fàttalil qissa Moussa ak Firawna ndax nga waaru ceeti wala qad arsalnaa yónni woon nañ Moussa bi ayatina ñu jox ko ci suñu kay kawtéef ila firawna mu jëm si ci firawna wa malayihi ak mbooloom ma fa qaala Moussa nga naan inni man day rasulu rabbil alamina yeneen sa borom mbindeef yi laa falamma jaahum ba mu dikkalee leen bi ayatina ci suñu kawtéef isaawum ci betteel ñoom yodaxakuuna ngay ree di reesaan mina ca kawteef ya reetaan dëgg lañ koy def ndax dañ koy yejji wa ma nurihim déet nuy wan leen min ayatin benn kawteef ilahiya lu biñ mujj wanee akbaru moo gën a màgg min waxtiyaa ci bi nga xam ne moo jiitu wa axadnaahum ñu jàppe leen bila adabi ci mbugal laallahum ndax ñoom yari joxoon nañu dellu wa qaalu ñu nga naan yaa ayyuha saaxiru ee yow jabar bi noonu lañ ko daan wooyee udu na nga woo yow Moussa la naa ñeel ñu rabbaka sa borom bi ma ayda la miin na miin na ko indaka fa yow li miin fa yow mooy booy ñaanee rek soxla la te kon dana nangu inna naa ñun la mooto dana way jublañ yàlla ne wala maa kashif naa ba ñu um uññee anum ci ñun azabu mbugal ma ba wal ga ñëwee ñu ñaan wal ga dem ba njéeréer la ñëwee Moussa ñaan wa njëre la dem ba mbotte yi ñëwee mu ñaan mbotte yi dem ba deret ji ñëwee mu ñaan mbotte ya deret ji dal di dem loolu yëpp dañuy delluwaat ci kéefër ga te bu ci nekk dañ naan ñaanal yàlla ci li nga miin ci moom te bu mbir mi dañee danañ la gëm falama kashaf naa ba ñu uññee anum ci ñoom alazabu mbugal ma isaawum ci betteel ñoom ñëpp yéen ku suuna ñu firi kóolëre wa naadaa woona firawnu fi qawmi ci nitam ña qaala mu ne ma ngay wootee ci nitam ña naan yaa qawmi yéen samaw nit alaysa lii ndax ñeeluma mulku misra moomelu misra ndax du mën naa am égypte ñu ne ko ah kay mu ne wa hasil anhaaru yolnde bii muy naaru misra muy muy muy yolnde boobule tajri ma ngay daw min taat yi ci sama suuf ñu ne waaw mu ne afalaa tubsiruuna xanaa du ngeen seet lii xam ngeen ne maay yàlla maa moom misra dex gaa ngi daw ci sama suuf xanaa xamu leen lii am ana ndax du man ndax nekkul man xayrun maa gën min asa ci Moussa allazi mi nga xam ne woo mahinun ku doye di la te sax déggul sax làkk yi lamiñam setut wala yakaadu yu biinu xawuta jege xawuta mën a biral li muy wax fa loola ulqiya su fekkee Moussa am na dara lu man te sa nees alay ci moom aswiratun ay lam min daabin ci wurus te yàlla sànni ko ci asamaan lami wurus aw jaamaahu wala ñëw ànd ak moom almalaykatu malaaka yi mu muxtari ni ñu di way lënkoog moom fu mu dem ba mu waxee loolu nag fa saxasta mu daal di woyaf lu xaw ma woon itam ña ba mu waxee loolu rek mu daal di woyafal xeli nitam ñëpp ñu topp ko faataawu ñu topp ko innahum naka ñoom kaanu nekk nañ xaw ma ndiw faasiqiin ñi dooy gën a topp buur nag ne falama aasafuuna ba ñu mer looñu yàlla sax du mer waaye falama aasafuuna ba ñu indee suñum sànje ci ñoom intaqam naa ñu daal di fayu minum ci ñoom fa axraqnaahum ñu labal leen ajmain yi ñoom ñëpp fa jaalnaahum ñu mujjal leen salafan ñi di way dawe wa masalan ñi di misaal lil aaxarina ñeel ñenn ña ku ñëw di nekk naan fii lañ nekkoon nangam dal mu ñëw ci yenteeli isa abdullahi ibnu zuhbari yi dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw yow de dégg nañ nga ne yéen ak li ngeen di jaamu yépp safara ngeen jëm te xam nga ne ñun isa la jaamu te xam nga du dem safara te yahud yaa ngi jaamu Uzayru te Uzayru du dem safara lu tax nga wax loolu yàlla ne wala ma duriba ba sa deef ibnu mariam masalan misaal ba ñu saddalee eesa aw léeb isa xawmu ko ba saw nit yasudduuna ñuy fekk wattandi ko anu ci moom wa qaalu ñu nga naan aliyatunaa ya xayrun moo gën am huwa wala moom maa darabuuhu te duñu léboowu làkk ñu yàlla illaa jadalan lu may bëgg a dàgge sante balla fi nekk hum ñoom xaw mën aw nit lañ xasimuun ñoo xam ne ñu mën a xuloo lañ in huwa déedi isa ila abdun ab jaam rek la na am naa alayhi ñu xéewal ko wa jaal naahu ñu def ko masalan muy misaal li bani israil walaw nasha suñu neexoon la jaal naa ñu def minkum ci yéen malaayikat naay malaaka filardi ci suuf yaxlufoo nañu wutu yonente yi wa innahu naka lu la ilmun xam-xam la bi saati ci dikku bés pénc falaa tamturun na bu leen sikk mukk bi ay ci loolu wa tabiuni topp leen ma haza lii suraatun yoon la mustaqim wu daa ji jub walaa yasaddannakum ngal la bu feg leen bu wattandiku loo leen bu feg leen mooy bu tere leen cheytaan ba ngeen di jàmm yàlla innahu cheytaani lakum ñeen leen aduwun noonu la mu beneen bu daa ji wala maa jaa ba dikkee isa bil bayyinaat ci lay yu weex qaala mu ne qad jiitukum man de indil naa leen bil xikmati ci xam-xam wali ubayyina ak ma biral lakum ñeen leen baad allazi leeni la nga xam ne taxtalifuun da ngeen di wute fii ci loolu fa taqullaa ragal leen yàlla waa teew ñi ngeen topp ma inna laa yàlla hu moom rabbi mooy sama borom wa rabbukum mooy seen borom yéen it faabuduhu jaamu leen ko haada jaamu yàlla ku dul ku dul siraatul yoon la mustaqimu day jub faxtalafa dal di wuute al ahzaab kuréya min baynihim seen diggante fa waylun qurwa a safara bi lazina ñeel na ñi nga xam ne dala moo tooñ nañ min adaabi yowmin ci mbugalam bés alimin mu daay ji métti hal yanduruun ndax dañuy xaar ndax am na leen la ñuy xaar ila saata lu may bés pénce antaat yow mu dikka leen baxtate ñi métteel wahum te ñoom laa yashuruna duñu ko yëg léegi nag ba yowmal qiyaam nu muy mu ne keroog day alaxillaawu xarit ya yow may sin bés penc baadum ñenn ci ñoom li baadin te ñenn ña adduwun ay noon la doon su waxtun baaduhum kon ñëpp tiit mu ne yowmal qiyaam dana am ñenn ñoo xam ne ñoo seeni xarit ay noon la ñuy doon xam nga loolu lu koy waralam xarit bi nga xam ne ngeen ànd mooy yàlla ànd def lux lu xóor yowmal qiyaam sa noon la ndax dafa nar a seede ne fekkee na bi koy def kon boo ko séenee da ngay daw kon nag baaduhum li baadin adu ila almuttaqin lu mooy ñi xaritoo ci ragal yàlla yaa ibaadi yi yéen sama jaam yi laa xawfun déet ragal aleykum ci yéen al yowma tey wala antum déet yéen taxzanoona ngeen di tiit te dina mooy ñi nga xam ne rek amanoo gëm nañ bi ayatina ci suñu alquran wa kaanoo te ñu nekk muslimina di way omatu ñooñu dañ leen di wax naan udxuloo dugg leen aljanata aljana antum yéen wa azwaajukum ak seen jabar ya tuxbaruuna def na dégal leen wala def na xiiwal leen foofale yu taafu def na wërale alim ci ñoom bi saxaabin ci ay plateau min daabin yu bàyyi ko ci wurus waa koobin ak goblet mooy kaas wa fiyaa nekk na jamaat ashte yi lépp la dina foytu ko mooy bëgg alanfusu ay bakkan wataladu lépp luy bànneexu ci al aynu bët buy xool wa antum yéen xaalidun way béelu ngeen fiyaa ci aljanna wa tilka aljannatu boobu la aljanna lasi mooy bi nga xam ne uristumuha donna leef na leen ko bi ma kuntum ngir sabab si la ngeen nekkoon taamaloona ci def ko ci àddina walakum ñe leen fiyaa ci aljanna faakeet nay fay téef kasiratun yu bari mina dafay def yooyu ta kuloona ngeen di lekk innal mujrimina ba walbatikoon nag ca way def bàkkaar ya ñoom nag fi adabi jahannam ñu nga ca mbugalam safarama xaaliduuna ñu nekk di way beelu ca safara soosale Tirmisi dafa solo jëlee ci Suleymaan ibnu Burayda mu jëlee ci Burayda baayam benn mu ne benn waaye def na woon yonent man mi yow mi yàlla yónni man gëlëm rek laa bëgg ku bëgg gëlëm laa moo tax bu ma demee aljanna danga danaa fa am gëlëm yonent bi ne in yudxilaka allahu aljanna yakun laka fiha ma mashtahat nafsuka boo bu la yàlla yóbboo aljanna loo bëgg rek da nga ko fa am amma safara nag moom nee na foofu mooy kër ak mbugal foofu moo di kër ak sànj moo di kër ak naqar tey du jeex laa yaf laa yafattaru du dagg anum ci ñoom mbugal ma wala hum wahum ñoom fii nii ca mbugal ma mublisuuna ñu ñuy alak lañu wala ñu ñuy wedem loo ba ñu noppi fatt la ñuy def wa ma dalamnaahum tooñuñ leen de ci loolu walakin waaye kaanu nekk nañ hum ñoom azzalimin ñoo tooñ seen bopp léegi nag bu safara sa méttee ba métti wa naadaw ñu dal di woo malaaka ma yore safara ne ko yaa maaliku waaye li yaqdi na dal di jeexal alaynaa ci ñun rabbuka sa borom nan dee mu jeex rek nan lakk rek mu jeex nu noppalu ndax nu dee qaala mu ne déedéet innakum yéen kay maa fi soon way sax ngeen fii waaye du ngeen dee ndax fii ku fi ñëw moom laa yamootu ayamuutu biha wala yaxya laqad jinaakum yàlla ne li may fayoo loolu moo di ne laqad jinaakum indiloon nañ leen ci àddina bil xaq ci alquran muy dëgg walakin waaye aktarakum li gën a bari ci yéen kaarihuuna way bañ lañ leen xaq ci dëgg te it daa ngeen fexe ay pexe daa ngeen fexe ay pexe ngir yàq moo tax mu ne am abramu ndax raw nañu ba raape seen pexe ba mu dëgër am rek mbir fay naa ñun yàlla day bu ngeen ne boo fexe waaye ñun mubrimuuna way dogu lañ ci lakk leen am yaxsabuun ndax dañoo joortu woon ne ba ñu nekkee ci àddina di diyaale ak a yàq dañ joortu woon ne am naa ñun yàlla laa nasmau duñ mën a dégg sërrahum seen lu nëbbu la wa najwaawum ak seen ndéeyaale ba bala a kay dégg nañu ko ayaxsabu ndax dañoo joortu woon ne nekk gañ nekk ci àddina ñun yàlla la nasmau sirrahum wa najwaahum balaa en dégg nañ leen sax de te it li tegu ci loolu mooy wa rusuluna suñu yónente ya muy malaaka ya ladayhim ma nga fa ñoom yaktubuna di bind li ngeen doon def te ñun kat déggoon nañ ko fekkee nañ ko waaye terewut sant nañ ñeneen ñi ko bind ndax mu nekk seede ba ku ñëw fii lu ma la fay doo ko mën a weddi ndax am na seede yàlla bàyyi na loolu mu ngi bëgg a waxati ne jomb na mu am doom moom amul doom mu nekkul waxal ne in ndem nekk na su fekkee ne da ngeen wax ne yàlla am na doom man ñii yónni day maa ngi wax ne in kaana ndem nekk na li rahmaani ñeen yàlla wala dun doom day fa ana man day du ma doom man nangu naa ne awalul abidin may njeel benn ñi nekk jaamam man subhaana rabbi samawaati sell ñeel na yàlla mi mu asmaan waar rek suuf rabbil arshi moom mi mu arash jomb amma ci li nga xam ne yasifuuna da ngeen melal ko ci seen lammiñ ne yàlla am na doom yow yeneen ci bi nag fazarhum bàyyi leen ci loolu yaxuudu ñu xuus ci wax luñ xamut wa yalaabu ñuy fo rek xata yulaaqu ba ñu daje yow moom seen bés ba allazi bés bi nga xam ne yow adduna def na tëkku leen ko wawa yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne fi sama yi ci asamaan sii ilaahun moo fi yàlla wa fi l ardi ci suuf itam ilaahun moo fi yàlla wa huwa yàlla moom alxakim mooy ki xarala alalimu mooy ki xam wa tabaraka bari na yiw allazi yàlla mi nga xam ne la woon ñel na ko mulku samawaati wala asamaan wala ardeeg suuf wa ma baynahuma li ci diggante bi wa indahu nekk na fa yàlla moom daal ilmu saati xam kañ la des nañ cee ñëw yàlla daal moo ko xam wa ilayhi jëm si ci yàlla turjauna te dee fi delloo leen wala yamliku du moom la si ñi nga xam ne yeddoona da ngeen jaamu leen min dooni ñi ñuy tudd wuñu yàlla duñu moom ashafaaatam ramm amu ci kenn ku mën a ramm illa man shahida lu mooy ku seede ci àddina bi la xaq ci dëgg um te ñun xam ko wala in saaltaw ndax am boo leen laajoon naan naan leen man xalaqahum kan moo leen bind la yaquluna dinañu wax ne allahu yàlla moo leen bind kon nga ne faani yufakuun ana fi soppi leen wa qiilihi ak waxam ja luy maanaa wa kalimatu wa qiilihi ak wa qawlihi ñoo niroo ndax qaala min al qawli wa qiila min al qawlu te qawlu mooy masdar ma ndem qawlu mooy masdar ma nag te masdar fiil buy sulaasi di faala bil fatxi masdar ma faalun lay tolloog bi maana qawlu kon qawlu mooy masdar qaala waaye bu nekkee qawlu daf lay wóor ne xarafu ràgg woowu maas li ko jëkk dañ koy seet ñu ne ah li ko jëkk day bu fàttaa woon ne kon muy qaala ñu ne waaw waaye fiil ji nag buñ ko binaayee ci majhul li ko jëkk kon day kasara qi la ñuy wax ñu ne li ko jëkk kon bu kasara mbokkam kasara de mooy yaa yaa dali dikk moo tax nekkul wa qawlihi mu daal di wa qiilihi ak waxam ja ne yaa rab loolu mooy maanaam yi naxwiyan wa bayaniyan waaye lan la bëgg wax nag fii ci alquraaniyan quraaniyan dafa bëgg wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ja muy wax naan borom bi tabaraka wa taala mu naan baleen rek ba ñu dajee bés bañ leen di tëkkoo wa qiilihi ak waxam ji muy wax moom yonent bi naan yaa rabbi yow yàlla inna haawulaay ñii day qawmun aw nit lañ laa yuminuuna duñu gëm kon nag sa mbir la ak ñoom nga seet noo def ak ñoom fasfax nga dëddu anum walis leen waqul waxal leen salaamun jàmm ak jàmm fa sawfa yaalamuun xalse na ñoo xam an makiyatun ndax ñoom ñëpp màkk la ñu wàccee ñoom xawaami mi saar wi muy saaru saxaar suñu koy tënk dañ naan saar wi lamboona biral màgguk alquran xupp ñi nga xam ne ñooy sàkkal yàlla morom saar wi dina léeb ay léeb ci firawna ak nitam ña ak ci fan lañ mujj dana saxal dekki dana di ci teg ñoom dana ndi ay mbir yu jagoo yéefar yi ak jullit ñi saarwaa ngay jeexee nag ci lim tàmbale woon mooy di waxee alquran ci boppam mu ne xaamim bur ne wal kitaab yi géej naa ci téere bi almubiini bu daa ji bir innaa ñun yàlla anzalnaahu wàccee nañu alquran fii laylatin ci guddi mubarakatin guddi gu ñu barkeel dinaañun ku na nekk nañ mundirin di way waar fiiha ci guddi googu yufraqu la deefi teqalee kullu amrin mépp mbir xakimin moo xam ne mu ñu xereñe la amran ci mbir mi ne dina bàyyi ko fi ñun ku na nekk nañ mursalina di way yónni mubaraka wala maaw yi ñii dañ ne mooy laylatu naxri ñi ne mooy laylatu nisfu min chaabaan ñi ne moo di laylatul qadri waaye ñi wax ne mooy laylatul qadri ñooñu ñoo jam mbir ma nekkul benn guddi lu mooy laylatul qadri li ko waral moo di ne dafa wax ne wàccee nañ alquran ci guddi gu ñu barkeel ga kon beneen aaya ne wàccee nañu alquran ci leylatul qadri kon nag loola bokkul ak leylati nisfi min shaaban ndax fii moom dafa wax rek ne leylatin mubaraka waaye fële moom leeral na ko fii leylatul qadri rahmatan mu di yërmaande min rabbik mu bàyyee ko ci sa borom innahu yàlla huwa ma samiu mooy aji déggal alim mooy aji xam rabbi samawaat borom asamaan wala ardeg suuf wa ma baynuma li ci diggante bi in kuntum dem nekk ngeen muuqinee di way wóolu laa ilaha dil benn buur ilaa huwa lu mooy moom yox yi day dundal wa yumeetu muy rey rabbukum mooy seen borom wa rabbu abayikum mooy boromi seen baay yi al ya nag laa wax seen baay yu yi mooy maamaat ya ball fi nekk hum ñoom fi shakkin way nekk lañ ci sikk yalaabuuna ñuy fo fartaqib buur ne na nga muñandiku na nga fuglu mooy na nga xaar bés bi tukki mooy yow ma taati bés bay dikk asamaa wa asamaan bi du xaanin ak saxar mu beneen guddi aji birjik saxar lépp dal di commencé di yeey yaxsha muy muur naasa nit ñi aada lii day adaabun mbugal la alimun guddi aji metti rabbana yàlla ak chef yan na nga uññi annaa ci ñun ala adaaba mbugal ma innaa ñun muminoon way lañu ana lahum fandi tukkee ñaan leen dikra ak waaru waqad jaahum dikkal na leen rasulun yonent mu bineen guddaa ji biir ma tawallaw ñu dëddu an walis ko wa qaalu ñu ngi naan waa ji di ay muallamun kuñ doon ku ñu xamal la as ndongo la suñu jàngal dañ ko doon jàngal waaye mañ noonu kuñ jinne la dafa dof inaa ñu yàlla kaashiful adaab way uñu la ñu mbugal ma qalilan tuuti innakum yéen aidoona way dellu ngeen yow ma nabtashu bés ba dana nu téye albachata téega alkubra guddaay mag bu keregee ngeen xam ne yi naa ñu yàlla day mun taqimoon way mën a lañu mu ñëw ci tuuti ci xisat xisatu firawna di yéemu ci tax nit ñi duñ waaru ci firawna mu ne wala qad nattu woon nanu fitnaaloon nanu qablahum li leen jiitu xawma firawna wa jaahum dikkal leen rasulun yonente karimun bu aji tedd muy Moussa mu leen an eey addoo boyal leen ilay jëm ci man bani Israil na boyal bani Israil ñu ànd man jaamu ji yàlla inni man lakum ñeen leen rasulun yonente laa aminun bu ñu wóolu wa an laa taalu nee na bu leen jéem a kawe kawelu alalaay ci yàlla nii man aatikum aji dikkal laa leen bi sultaanin ciw lay mu beneen wudaay ji biir way ni man ustu muslu bi rabbi ci sama borom wa rabbukum te mooy borom antar jumoo ngeen jàmm wa in lam tuminu su fekkee gëmu leen li ñeel ma fa ataziloo beru leen ma fa daa mu daldi woo dal di ñaan nag rabboo boroom ne yàlla an ana awlaay ñii day xawmun aw nit lañ mujrimoon a ñi di way def bakkaar yàlla ne kon nag fasri reñaanal bi ibaadi yi sama jaam ya laylan ci guddi innakum yéen mu tabboona ñu ñu topp ngeen watru ki bayil albaara géej ga raawan muy aji wow innahum ñoom jundun ab leen lañ moo raxoona ñu ñu labal kam tarakoo bari na ba ñu labee ba fa min sin janaatin ci tool wa uyunin ak ci seewnde wa zuruin ak ci mbay wa maqaamin ak ci place moo di maqaama karimin yu tedd fonctionnaire yu mag yow ci nañ ko fa ak tool yaag mbay ma yëpp labi ca ca dex ga wa niamatin ak ci xéewal kaano yooyu nekk nañ saakine di way xéewu fiyaa foofale te dalika nag noonu waaw res naaha donn loon nañu ko xawman aw nit axarina a xam ne ñeneen lañu sama bakkat te ba ñu dee sax jooyut alim ci ñoom sama wa asamaan wala ardeg suuf wa maa kaanu nekkuñ mundarina di ñu ñu muñal wala qad najaynaa musaloon nañ bani israil min al adaabi ci mbugal ma almuhini mu daa ji doye dal leen min firawna innahu firawna kaan nekk na aliyan daa ji kawe min al musrifin bokk ci way jiggi daye way yàq ya wala qad ixtarnaahum tànn nañu leen ala ilmin ci xam-xam alal alamina ci bindeef yi wa ataynaahum ñu jox leen min al ci ay kawtéef maa fii la nekk ni ci balaawun nattu mubinun boo xam ne aji biir la na loolu mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy weddi dekki ñoom lay tontu mu ne inna haawulaay naka ñii la yaquluun danañ wax ne in hiya déet dee ila mawtatuna lu mooy suñu dee rek al ula gu daa yi naaru deen ñun bi munshariin ñu nekk di ñu ñuy dekkalati faatu indi leen biyaa bàyyi naa suñu bàyyi in kuntum dem nekk ngeen sadiqina di way dëggu ci li ngeen wax ne dekki am na te suñu bàyyi ñëw léegi ñu deewoon nu gis ahum ndax ñoom xayrun ñoo gën te fekkee ñoo gën kon dekkal leen moo gën a jafe ak rey leen am xawmu tubaa wala nitu tubaa mooy mu lookul yaman yooyu nettali woon nañ seen mbir wala dina ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu alaknaahum alak nañ leen innahum ñoom kaanu nekk nañ mujrimina di way def bakkaar wa maa xalaqnaa binduñu asamawaati asamaan wala arda suuf wa maa baynumaa li ci seen diggante laa'ibiin defuñ ko ngir fo maa xalaqnaahum binduñu leen illaa bil xaqi lu mooy ci dëgg ak waaru ci walakin waaye aktarahum aktarahum gën ja bëri seen laa yaalamuuna xamuñu inna yowmal fasli naka bésab teqale ba mooy bés pénc misaaqahum miqaatuhum mooy seen rendez-vous ba mooy waxtu wa ñuy daje ajmaina mboole seen yawma laa mooy bés bi nga xam ne du jëriñ mawlan xarit an mawlan ci xarit bi cheyan dara wala hum déet ñoom yansuruuna déefi tere leen walis mbugalam yàllam illaa man lu mooy koo xam rahima yërëm na ko laaw yàlla innahu yàlla wa moom al aziz mooy aji not ci kàttanam arrahim mooy aji ay jaamam inna shajarata zaqqumi naka garab ak zaqqoom te dawe woon na ñaari yoon téere bi taamul mooy ñamu def ko ci bakkaar ya kal muhli mu ngi mel ni ki përëm bu ñu réel yaxli day bax fil butuni naan ka xalil xamim ni ki baxal mu tàng ñu naan xudoohu jàppaleen borom faatiloohu jiri leen ko ila sawaayil jaxim ci digg safara su ma sa leen aw xaraasi ci kaw boppam min azabin xamim ci mbugalam ndax mu tàng naan ko dukk mosal innaka yow anta yow al aziz yaa ji tedd ja al karim nga xam ne yaa mel ni abu jaal yaay aziz yaay karim jël tàndarma xolli ko boole ci ak suukar dëbb ko daal dina jaam mooy zaqum su ma toogee ne zaqum bu toogee ci pencim ba yàgg mu ne zëq ku mi nii jaam bi indi ñu dagg ku ne ñu jox la buñ lekkee xaqataay mu ne garab gii la ñu Muhammad di tëkkoo naan àllaaxira yàlla nag ne buñ ko jàppee nag ba diri ko ca safara sa sotti ndox mu tàng ci kawam ne ko duk mosal innaka yow anta yow al aziz yaay ku tedd kooka woon alkarim ku daay ji tedd inna haada naka lii ma kuntu mooy la ngeen nekkoon tam turona di sikk ak weddi bii ci a jidoo perti lawum ñeen leen min dooñu laay ku dul yàlla an faaran ku leen di tere ku leen mbugalam yàlla wa qaala wax noo noo rabbi yàlla léegi nag sës naa laa tazar na ñëpp rek dee tey bul bàyyi alal ardi ci suuf min al kaafiriin ci yéefar da yaaram kenn innaka yow in tazarum boo leen bàyyee fii it yu dulloo ñu réeral ibaadaka sa jaam yu baax yi walaa yalidu duñ jur nag illaa faajiran loolu noonu wax na dëgg ku dun rek junne at ak yi nit fekke nga seen doom ak ki doomaat ak ki doomaat xam nga li ñu jur num nar a moo tax mu ne duñ jur mukk illa fajira lu may ab kàccoor kaffaaran ku daa ji wetti rabbi yàlla ndax te lii man nag yàlla nag ma baal wali waalidayya ak sama ñaari way jur wali man daxal ak képp ku dugg bay bayti sama kër fekk muminan mu ngi gëm yàlla walil muminin ak jullit ñu góor ñi wal muminaat ak ñu jigéen ñi wala tasid bul dolli zaalimina way tooñ ji nag ñoom illa tabaaran lu may ak alku jinni makkiyatun saar wi moo nett li yonent bi ne ko bi nga nekkee ci naxlata amoon na juróom ñaari jinne yu la dikkal nekk ay kilifa ca xeet woowale ndax yonent bi yëgu ko woon waaye loolu day dëgëral yonent bi ci li mu nekk di ko wan nekk dëgg la day jinne yi sax gëm nañu la moo tax mu ne qul waxal ne uxiya wax yóbbu na ilaya jëm ci man ni annahu nak luy mbir istamaa déglu na nafarun mbooloo minel jinni ci jinne ya faa fa qaaloo ñu ne innaa ñun dey sami'naa dégg nañ qur'aanan alqur'aan yoo xam ne ajaban kéemaan la yaa dii ma ngay juble ila rushdi jëm ci njub ma fa mën naa gëm nañ bi ci alqur'aan bi wala nu shirek ñun dootuñu bokkaale bi rabbina ak suñu borom aadan kenn waa na woo luy mbir tooy na jaddu rabbina màgg màgg ak yàlla wala maamuk yàlla te du dagan ñu wax ko maam kon nag yàlla la ma saa jàpp saahibatan jabar wala wala dan du caageen doom waa na woo luy mbir kaani nekk na yaqulu di wax safiwu naa aji desee xel suñu satatan ak jéggi dayoo alalaayi ci yàlla waa naa ñun zanan naa joort nañ ba tey jinne yey wax joort nañ ne an lan du wax alintu nit wal jinnu ak jinne kadiban ay nar alalaayi ci yàlla waa na hu naka luy mbir kan nekkoon na rijaalun ay góor min al insi ci nit bu ñu jàppee yahuduuna ñuy muslu bi rijaalin ci góor min al jinni ci jinne ya ba boobu ku doxal ba ñëw ci xur sax bëgg faa fanaan da nga naan maa ngi muslu yàlla ci jinne xur wi aar ma jinne jooju daal di ñëw di la aar ba dara du la moo tax mu ne ay góor ci nit ñi ñoo daan jaamu ay góor ci jinne yi fa dolli leen loolu nag raxaqan ak bew ak ub jéggi dayo waa nuum ñoom sannoo joortu woon nañ kama danantum naka nii nit joortoo jinne it noonu la doon joortoo ne alan yabaasa du yónni laaw yàlla adan kenn yaakaaroon ne nu wa jeex na waa naa ñun fi la mas naa dañoo lamb sama asmaan ba wajan naa ñu fekk ko mu liat ko aarasan way wattu te di dan ñu di way dëgër bu sooba nag i jum waa naa ñun fi ne ku naa nekkoon nañ naqaudu di toog mi naa ca asamaan maqaa'idaay toogukaay di samay ngir déglu léegi nag ba man yestamee ku déglu na al'aana léegi yejit mu fekk dawa ñeel ko shaaban jum rasulan boo xam ne aji xaar la ko waa naa ñun nag laa nadri xamuñu loolu lu ko waral acharun ndax aw ay urida la na meet li man fil ardi ñu nekk ci suuf am arada wala na mën a biim ci ñoom rabbuhum seen borom rashadan mu dim njub waa naa ñun jinne min naa nekk na ci ñun saalihoon ñu yiw waaye wa min nekk na ci ñun doona zalika ñu yees am njub de ku naa nekk ñun tarayiqa di ay yoon xidadan di dooy wuute waa naa ñun dana naa jortu woon nañ leen an la nu'jiza duñu raw duñu lottaloo duñu raw mukk laa yàlla ci di ci wala nu'jizu duñ ko lottaloo duñ ko raw mukk xaraban ci gaw waaye na ñun dama sami'naa bu ñu déggee al hudaa njub aman naa gëm nañ bii ci njub ma fa man yumin ku gëm na bi rabbihi ci boromam fara xaafu du ragal baxtan génn wàññeeku du ragal génn wàññeeku wala génni génn perte wala raxasam du caagin ak tooñ waaye naa ñun minna nekk na ci ñun ñoo xam way omatu lañ wa minna nekk na ci ñun it al qaasitoona way jënga ya fa man adlam fa man aslama képp ku jébbal na boppam yàlla ulaayika ñooñu taxarraw natt la nañ rachet dina am njub wa amal qaasituun daal way jënga ya nag fa kaanoo nekk xataban di matt ci jahannama ñeel ñeel safara buur nag ne yonent bi wa ana law istaqaamu wala wa al law istaqaamu bu fekkoon ne juboon nañu ala tariqati ci yoon wi la asqinaakum danañ leen xéewal ba nandal leen maa an ndox moo xam ne gadaqan aji bari la mu li nafsinahum ngir ñu nattu leen fii ci loolu wa man yu'rid képp koo xam ne dëddu na an dikri rabbi wali su sudd boromam yasluku sa soob ko adaban mbugal moo xam ne saadan aji yëkkati ko la mooy aji màgg la waaye nal masajida naka jàkk yëpp lillaahi ñeen na yàlla fala tad'u bu leen jaamu maa laahi ànd ak yàlla ahadan kenn waa na woo aka luy mbir dama abdullah jaamu yàlla bi te moo di yonent bi yad'uhu di ko jaamu kaado jege nañ ñoom jinne yàkkuuna di nekk li badan di way rank li ko alayhi ci kawam di wàcc rek di wàcc ci kawam ba wër ko kul waxal ne innama ad'u naka dinaa ñaan ak ak jaamu rabbi yi sama borom wala ushriku du ma bokkaale bi yeeg mu ma adan kenn kul waxal ne inni man day am liku du ma moom lakum ñee daran lor wala rashadan bu caageen am njub kul waxal ne inni man lan yuy jirani du musal ma mi ne laay yàlla ahadun kenn walan ajida fekkati ma mu taadun benn wéeruwaay min dooni yi budul yàlla illaa balaaxan lu mooy bu fekkee dama toog di jot tali di ma yónni mi ne laay bàyyi ko ci yàlla wa risalaat bi ci yaasi ku moy na laa yàlla wa rasuluk yonentaam fay na la wa naka ñeen na ko naara jahannam safaraw jahannam xaalidin ñi di way bielu fiyaa ci safara abadan faw hatta isa raaw ba ñu gisee nag maa yuaduun te dem na tëkkoo leen ko fa sa yaalamuuna xal dinañoo xam man adaafu ana kan moo gën a doya di naasra di ko koy dimbale waa xal kan moo gën a néewit adadan ci limam mbooloo mu koy jàppalee kul waxal ne in adri yi den may xam a qaribun ndax aji jege la maa tuwaadun te dem na dal leen ko am yejaal wala day def rabbi yi sama borom la wa ñeel loolu amadan ab diir aalimul xëy bi yàlla moo xam lu faddu fala yudhiru du ala xaybi ci fàddoom nga aadan kenn illa man irtada lu may ku mu gërëm min rasuli ci laa la moom yonente la te innahu moom yarsu ko day sóob min bayna yadihi ci kanamam wa min xalbi ak ci gannaawam rasadan ak fuglu boo xam ne dafa nekk di aji wattu wala ak wattu li yàlla ma ngir mu xam ne an ey xadaat la oo jottali nañu li saraati rabbihim yeneen teg seen borom wa axaata léem na bi ma ladayhim lu nekk ci fa waa sa takk na ku la seen lépp la fa adadan ci lim li ci nekk rek yàlla xam na nu muy toll suratul mus ci bu mel ni bu tey bii ci guddi gi dugg muy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci dëkk naan Makka ci montagne bu ñu naan xiraa ci menn xunt mu ñu naan xaaru xiraa ci guddi gi dem ba romb xaaj fekk kenn yónnee ko daan jël ay mburu ak ndox yóbbu ko dem ci àll bi nekk fa lu yàgg jiwéet ak boromam loola xeet ci yar ci tarbiya la amul kenn ku mën a yaru ci yàlla lu may da nga wéet te xalaat ci yàlla moom it mu miin loola di ko yaree ba kanam ndax mi ñi boo nekkee ci ñoom rek kiiraay la ñuy doon féeg nit ñaa ngi fi yaa ngi yiiru moom nag muy dem ba sëri wax na ka ne na alifa nuska wal ibadata wal xalwata tuslan loola ba muy gune yëpp sàmmoon na loola doo mag jëm ci yàlla feeg doo wéet arifoone yu ulamaa yu saalixoone dañuy wax naan wattandikul garam place yaag ngom laa nag nit ña feeg yaa nga ca doxatoo jëm ci yàlla fen fa nga nekkoon rek ngay ma war nga di wéet ak sa borom di xalaat ci moom sa xaatir jéem a jokk ci moom nga xalaat ci mag ak kàttanam ak melokaan li nga ci àttan muy def loola nag waaye ba mu demee ba ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci guddi am na lu ko dikkal fekk ko ci xunt bi ne ko jàngal mu ne déedéet du ma jàng de man sama xeet xamuñu jàng loolu njëtt ko ba mu na mu bàyyi ko ne ko jàngal mu ne ko duma jàng mu njëtt ko ba mu sonn mu bàyyi ko ne ko jàngal mu ne ko duma jàng mu ne mu njëttaat ko ne njëtt lu métti métti ba hatta balaga minil juhdi dama yaakaar léegi nag dama bëgg rey waaye ku daj ku ñeme la woon yaakaar naa ku nekkoon ci ci mpax guddi ci montagne ci biti dëkk ba am ponkol fekk la fa njëtt la yow da di dof ci saak waxuma mu naan jàngal nga ne ko duma ko def mu bàyyi ne ko jàngal sa turu borom daal di xam ne ne kii gàjja du ko tax a ragal yoonu mujj wi nag mu daal di continuer ne ko jàngal sa turu borom wàccee suratu iqra ba mu jeex nee na ba mu yeggalee lim doon wax nañu dañ ko rëdd ci sama xol bi ma ne su ma ko fàtte te man musuma dal jàng xaw ma mbind du ma liir waaye ci sama xol bi lañ ko bind mënatuma kàttan maa ngi tiit nag mu ne ma ngi lox ba paalankay lox ndax waa ji liñ ko def fii mu ne ma daal di génn pax mi nag guddi gi yaa ngi bëgg jeex maa ngi nit jabalu xiraa mille mètres la ci kaw un kilomètre la guddi mu dem ba ci njoloxtan nga am na benn pax soo demee ba léegi bu la neexee nit ñaa ngi koy seet danger ngi ci parce que mën nga daanu sàkkal nañ ko ay yoon te béréb yi nit ñi noppalu di naan lu sedd ndax dafa sori moom nag mu dëkkoon ci léegi ma ngi wàcc xeer wi nag di ñëw bu ne ñamaas ñamaas dox mu dégg am ku ne assalaamu aleyka ya rasulullah mu geesu di gis kenn ay xeer rek ak i lay duur mu wàcc bu ne ñamaas ñamaas am keneen wax càmmoñ asalaamaaleykum ya rasulallah mu xoor xool ko mu di xeeru mat rek dara dëngub doj rek mu ne eeg eh, may it yàqu naa def naa léegi garab yaa ngi may waxee xeer yaa ngi may waxee def naa mu ne waaye mu dëgërlu di wàcc rek ba wàccee ba xaajal montagne bi mu dégg am ku ne ko éey eh, Muhammad ca kaw mu ne ma séen nag mu ne ma séen jëmm joo xam ne dama ko tafal sama bër sama bët bee mu jeex jëmm ji jeexul ma xool ci càmmoñ ba sama bët jeex jeexul ma xool ci gannaaw ba sama bët jeex jeexul bopp bi ma xool ko ci kanam mu ngi tolloog man naan ma eey Muhammad ma séen ko mu ne ma anta rasulullahi wa ana jibril mu ne yow la yàlla yónni man nag jibril moo di sama tur wow tur ma su ko dégg mu ne mu takk loolu nag ñibbi bëgg na ko muñ waaye wóoluwul xadijatu ne ko Muhammad fa nekkoon yebal naa sama gune ñu wër la fu nekk béréb yi ñu daan wëree yëpp gisuñ la ko mais tey nag dama sori woon maa nga demoon cëppantam jabalu xiraa làqu woon fa di dee rek sama borom waaye xadijatu am na lu ma fa feeñu ragal naa ne fokk dinaa dox mu ne ko lan la mu ne am na ku ñëw naan ma Iqra bismi rabbik allazi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram jàng ba saar yu jeex ne mënatuma ko fàtte su ma jéemee sax fàtte li ma doon wax du ma ko mën a fàtte te ku am doole la waaye wàcc itam am na ku ma feeñu xeer yi ñu wax nangam ak garab yi léegi maa ngi gis lu nit ñi gisut maa ngi dégg lu nit ñi du nga ndox dara lu may gis lu nit ñi gisut ndox ñëw Xadijatu ne ko waaw mu ne ko kalla doo yow gëne nga waaye maa la mag magee naa la fukki at juróom yow doo def mukk te yàlla du la toroxal yow da ngay jokk bokk berneel gan da dimbale ku néew doole yow doo def mukk laa yuxzika llahu abada ne kon baax na xadijatu dem nag seeti waraqatu min Nawfal ñettali ko mbir moomu waraxata woon ke ne li nga wax buy dëgg kooku yàlla daf koy yónni ab yónnente la ci ko dikkal nag naamuus lañ ko doon wax ci tawraat mooy kay jóge ci yàlla di indi ay xibaar muy naamuus malaaka la mu ne waaye fexeel ba Muhammad ñëw ma dégloo ci moom yonent bi ñëw ci kaaba gi ba dajeeg waraqa waraqa ne ko kaay mu ñëw mu ne ko mënuloo gis waxal ma déggee ci yow mu nettali ko li mu gis mu ne ko sëggal mu sëggal bopp bi waraqa góor gu màggat la woon amoon na lu jógee téeméeri at tel maxa la woon sax ndax magee waaye nasaraan la woon daan jàng tawraat ak linjil xam ko bu baax yàlla jox ko kashfu mu foon bopp yonent bi ci digg bopp bi ne ko subuuxun xudduus xudduus dal di ku sell kii moo ñëw ci yow mooy jibril yow yàlla yónni na la wante su ma fekkee woon buñ lay génne dëkk bii dinaa la dimbale mu ne danañ ma génnee mu ne mënul ñàkk su feeñee lii ci saw xeet dañ la génn moo tax bu muy gàddaay fekk na warata dee na mu ñëw na wax loolu xadijatu xadijatu ne baax na mu ne mu ne ko nag ki may wax ak yow ma nga nii maa seen muy ñëw li ma doon dikkal sàng ma rek amaan na du ñëw ci man ndax daf may tiital Xadija di jël mbàjj mi sàng ko Jibril di ñëw dugg mi ne ko yaa ayyuhal muzammilu e yow mi sàng ci mbàjj mi kum jógal layla guddi illa qalilan lu may lu tuuti di soo génn wala guddi awoon ku wàññil munu ci moom tuuti aw zid alayhi na dolli ci guddi gi li ngay taxaw warat ci li jàngal alquran tartilan ak ñeqantal ak jàng innaa ñun yàlla sanul kii dañoo nar a sànni alayka ci yow xawlan wax taqiran guddi yi dañ nar a indi ci yow kon dootoo mën a nelaw guddi inna naasiata layli naka xew-xewi guddi ci yomam ashaddu moo gën a tar wat an ci dëkk ak sabbal ci jëf waa xaw moo gën a moo gën a euh, jub itam tiilan ci wax guddi sabbal ci jëfi topp yàlla moo gën a jub ndax day tekk lépp ne tekk ñëpp lépp day dal kon nag guddi dootoo ko nelaw ci yow mi jëm ci yàlla ñu laka naka ñeel na la fi naari ci bëccëg bi nag sabxan ak seey xawi leen ku gudd bëccëg garal say soxla waaye guddi moom na nga ko jox yàlla waskur tuddal isma rabbika tuuturi sa borom wa tabattali nga dogu sab ci leen ak dogu ilay jëm ci yàlla rabbul mashriqi mooy borom sow mooy borom penku wal maghribi ak sow laa i di benn buur ilaa huwa lu may moom yàlla fattaxidu jàpp ko wakkilan mu di ku ñu sukkandikoo wasbir muñal ala ma yaquluun ci la danañ wax ko waajurum nga tongu nit ñi bàyyi leen hijran ak bàyyi jamilan guddaa ji rafet wa dar nii bàyyi man ak man man man yàlla wal mukaddibina ak ñiy weddi uli ni'mati borom xéewal yi wa mahilum ndang na nga leen muñal xalilan tuuti ñu ne la day naa nekk na fa ñun ëllëg an kaan ay tënk wa jahim ak safara wa taaman ak aw ñam daa gustatin boo xam ne borom fot la bu ko lekk da ngay fot waa adaban bugg a laal mi nu raaj metti yow ma tarjufu gis nga dina rëng-rëng yi xalaatu suuf si wal jibaalo doji wa kaane nekkal jibaalo maa yi leen guddi aji yeey i naa ñun arsal naa yéen nañ ilaykum ci yéen rasulan yonente shahidan muy aji sa aleykum ci na kama arsal ila firawna rasulan yonente fa asa mooy na firawna rasula yonente bi fa axad naaw jàpp ak jàpp wa bilan boo xam ne aji tar la mu fa kayfa tattaquun naka ngeen di ragalee in kafartum ndem weddi ngeen yow man gis boo xam ne day daalu day def alwil a shiiban ñi di way samaawaat samaat mun xattara mu nekk day ji xotteeku bi yéeg moom kaane nekk na waa doo dal ma foolen di lu ñu def inna hasi bii tazkiratu nag waar la ko man shaat ku neex na ku mu neex ittaxasa mu jàpp ila rabbi jëm ci borom sabila naw yoon ku mu neex nga jàpp jëm ci yoonu seytaane mu ne ko maa ngi lay woyafal dama waxoon ne ku mi lay la xam naa ne doo ko man te ñi lay royit duñ ko man kon maa ngi woyafal nag léegi inna rabbaka nag sa borom yaalamu dana xam ne annaka yow taqumu da nga taxaw addinaa lu gën a néew min tulu tey layli ci ñaari tulu guddi wa nisfahu lu gën a néew genn wa tulu tahu lu gën a néew ba wa taifatun kuré it ni ne la dina ci ñi nga xam ne maaka ànd nañu ak yow mënuñoo taxaw guddi gi yëpp wallaahu yàlla yu qaddir yàlla mooy xere ne léeg guddi wa naa rek bëccëg alima xam na ne ana lan tuxsu du ngeen ko li ngeen caaxaan ci bëccëg beeg taxawaalu ni mu ni mu xam sax ni mu toll ba di ko gëm-gëm leeg li di jaamu yàlla bëccëg wa taaba nangu na tuba aleykum ci yéen faqrawu jàng leen fekk yéen a ngay julli maa tayassara lu yomb min alquraan yi ci alquran alima xam na ne an sayakun di nekk min kum ci yéen marada jaaji wopp bu yàlla waxutoon faqrawu maa tayassara min alquran yi bu ko waxuloon kon mokkal alquran day nekk farata ci képp kenn ci nun te maa tayassara min alquran alima xam ne yàlla ne an tey kon nekk min kum ci yéen marda aju way wopp yoo xam ne mënuñoo taxaw guddi waa xaroon am na ñeneen yadriboon nañuy tukki bi daal di ci suuf yëpp taxoon nañuy sàkku ji min fadlillahi gënal yàlla mu di wërsëg waa xaroona am na ñeneen yu xaasilam dañu xeex ci sabilaay ci yoonu yàlla faqrawoo kon jàngaleen maa tayassara lu ye jàpp ni minu ci alquran ngeen di ko naafila gis nga yàlla moom yaakaar na ne ki du naafila wala gën wàlli guddi wala lu bari ci guddi gi ñii la yaakaar ne ñoo ko doon man mooy marba ak ñi nga xam ne yadribuna fil ardi ak ñi nga xam ne yuqatiluna fi sabilillah bon bu may bu fekkee nag sëriñ jaw nag moom moom ëpput tukkiwul jiyaarul reer na ba rekk ñelaw ba bi dañ ci julliwul suba kooku fu jëm ak lan la bëgg xanaa jëmatul ci yàlla faqroo jàngaleen ko naata yassara minhu lu jàppandi ci alquran fekk yéen a ngi julli waa ti moo taxawal leen ak moom salaatu julli waa to joxe leen zakata azaka waa qarudo lebal leen laa yàlla qardan bor xasanan bu daa ji rafet wa ma tuqaddimu lépp lu ngeen jiital ci lu baax di anfusikum ñeel seen bopp min xayrin ci yiw te jiitawu da ngeen ko fekkee indi laay fa yàlla huwa loolu xayran mu gën waa dama te mooy gën a màggaa yërëm ci yoon wastaxfirullaa na ngeen balu yàlla inna laa yàlla xafurun aji baal la mu leen rahimun yàlla aji yërëm la mu leen suratul mudakkiri ñoom ñaari saar yi ñoo tegaloo yeneen bi lay waxee mu ne yaa ayyuhal mudakkir ey yow aji dëkku ci mbàjj mi aji sangu ji mu ne kum jógal man du ma yónni ku tayal kuy toog fanzir nga waare li nga xam it bu ko denc wax ko nit ñi wa rabbaka sa borom fa kabbir màggal ko loolu mooy tawxiid wa siyaabaka say malaan fa taxir laabal ko daraay la xudru yu nu tax sobe fajur tong ko loolu mooy ay jikko wala tam nun bul ñaaxee nag tastakbir ngay sàkku bëril alal bul jox kenn di ko ca ñaax naan doote ko nag man nangam ak nangam loolu jikko ju bon la wasbir muñal di rabbika ñeel sa borom léegi nag boo defee lii ëllëg bu bés bañ ci ñëwee doo tiit fa ndem waleef na fi naaquuri cib bi cib muy buf saba asraay fil ne éey doomu aadama yi lépp lu doon dund na dee wala ñaareel ga mu ne yéen yax yu funax yi dekki leen fa dalika loolu yow may seen keroog yow mun des daa asrun bu jafe alal kaafirin ci way weddiya xayru yasiir nekkul aji yomb de des boobule bu boobaa nag yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéefari Makka yi yéefe boobu nga xam ne soo waxee dëkki am na ak àllaaxira ma ngi waaj ma ngi waaj nag nu mu la tontoo dal di ñëkkal xar kanamam dal di xalaat nu mu lay tontoo ba dal di taxaw dal di dajale alalam baril ko boo wootee mu jox la gannaaw mu ne zorni bayma wa man xalaqtu ak li xam ne maa ko bind waxidan dina may aji wéet ba ma koy bind kenn fekkewu ko du magam fekkewu ko du nijaayam du baayam du ndeyam du sëriñam ba ma koy bind man dong la kenn fekkewu ko tey ma ne na def nangam muy lànk wa jaaltu def naa la wëñeel ko maalan alal jaadina mamdudan ji di diñ talal wa bani naa ci doom shuhudan ñu nekk di way seede wa maa nag tàllal la wëñeel ko tanhiidan ak talal maanaam muñal ko lu yàgg xëccal ko aw fanam mu fi dunda su ma yatma mu weddi ma ba pare di yaakaar nag an azida ma koy dollee fi kallaa déedéet di nawoo kooku kaana nekk na ani dan jaa ji dëngee yaayaat naa ci suñu kawteef te uriqoo may danaa ko togg suudan mbugal moo xam ne dafa metti ba mel ni ku ñu yëglu asamaan te boo yëgul ñu taw la dina waa ji fakkara xalaat na nan lay tontoo yéen ba weddi ko wa qaddara mu daal di xereñe mbiram ba mu ba mu dajale ay mbiram wa qaddara mu daal di ko waajal fa qutila ala jeef na ko nag kayfa qadara maanaam kawtéef yal na kii dee moo ñeme looloy qutila kayfa qadara suma qutila kayfa qadara maanaam kawtéef kii yal na dee moo ñeme dee te dafa ñàkk jom moo tax mu ne qutila rees na ko xale xalagees na ko kay fa qaddara naka la waajalee tontu yonent bi su ma nasara gis nga ko mu xool yonent bi su ma abbasa mu ñëkkal ko xar kanamam wa basara mu ñëkkal ko su ma adbara mu jox ko gannaaw wa stakbara mu rëy rëylu fa qaala ma nga naan nag lii yëpp daf ko def doora nag tontu moom tar na ci ak bon fa qaala mu ne in hada lii la sixrun lu may mu nekk njabar goo xam ne yow saru jeef na koo ëffal dees na ko gënal daal ci leneen la in aadaade lii ilaa qawlul bashari lu mooy muy waxi mbindeef yàlla ne waaye sa lii may danaa ko jaarale saqara safara wu tudd saqar mu ne wa maa adraaka lan moo la xamal maa saqar safara la woo xam ne laa tubti du desal dara ci li muy lakk wala tadaru du bàyyi dara la waaxa ñëri waakoon la lil bashari di jaru dënd alayha nekk na ci la ko wër ci zota asara fukki malaaka ak juróom-ñeent ñoo koy wattu lee moo def musiba wa maa jaal naa defuñu asaaba naari ñooy wattu safara illa malaayika lu malaaka wa maa jaal naa defuñu iddatam seen ab lim illa fitna lu mooy muy fitna kam nattu li la jël ñeel ñi nga xam ne kafaro weddi nañ li yastayqina ndax wóolu la jël ñi nga xam ne oto joxe ni leen alkitaaba téere ba wa yazdaada tey dolleeku la jël ñi nga xam ne amoon gëm nañu imaanan ak gëm wala yartaar tew du mu sikki lajële ñi nga xam ne oto jeexal na leen alkitaaba téere wal muminoon ak way gëm ñu yàlla wala yaquul ak di wax lajële ñi nga xam ne fii qulubihim nekk na ci seen xol ya maradun feebar wal kaafiruun ak yéefar ya maza arada ñu ne lan la nam alaahu yàlla bi haza ci lii masalan ci misaal te dalika naka noonu yudri laahu lay réeral yàlla man yashaa ku ko neex wa yahdi muy jubal man yashaa ku ko neex wa maa yaalamu xamut junud rabbika lélëf sa borom ilaa huwa lu may moom wa maa yadeen moom ilaa dikraa lu ma yàgg waar la lil bashari mu ñeel bindee fii nadiran kalla wër naa jajj wal xamari géej naa ci weer wi mu wallayli géej naa ci guddi isaad bara bu joxee gannaaw wa subhi géej naa ci suba ida sara bu leeralee innaa naka lii muy wax daal di leen ko waaree la yeexdal ku bari kenn ci ñaari kawtef yu màgg yi la kenn ci ñaari ñaari njuma yi la benn benn njuma gi mooy alaxira benn gi mooy di leen waar di leen këpp naziran mu yaay ji nag lil bashari ñeel bindee bi man shaa ku mu neex min kum ci yéen an yataqaddama mu gaawtu jiitu jëm ci topp yàlla aw yataaxara kum neexit na arrière dellu gannaaw bañ a topp yàlla kuru nafsin bépp bakkan rayinatun ku ñu tay la la bi maa kasabat ci li mu fàggu ilaa ashaabul yamin lu may ñëw nangoo seen téere ci ndeyjoor fi jannaati ñu nga ca tool ya yatasaaloon ñu ngay laajante anil mujrimina ci def ci bakkaar ya ñu leen waaw yéen maa salakakum lan moo leen di saqara ci safara xaalo ñu ne ñun ndey li ñu di safara mooy lii lam nakku nekkuñu woon min al musallina ci way julli yi wala nakku nekkuñu woon nutimu daan leel al miskina miskin wakku naa nekkoon na xuudu di xuus ci caaxaan ma al xaayidin ànd ñu ci xuus wakku naa nekkoon ñu kaddibu di weddi bi yow mi din des pénc hatta ataana ba dikkal ñu tey al yaqinu dee kon day fama tan fa am du jëriñ leen shafaatu shafiin ramum way ramug way ramu ya fama lahum ja di ñeen leen fama lahum loog ñoom muaridin ñu nga nekk di way dëddu añu taskirati wari waritu waaruga gaanum daanaka ñoom xumurun ay mbaam lañ mustan faratun yu ñu tiital farat yoo xam ne daw nañ min xaswaratin ci seen gaynde guy ñëw ball bi nekk yuri dana juridu dana bëgg ku limrin lépp nit minum ci ñoom an yow taa joxew ko soofan téere mun a charatan bu ñu ko saaree ko biral ko kala téere ballu fi nekk laa xafuun ñoom ragaluñu alaxirata alaxira moo tax kala dejj innahu lii tadkiratu nag waar la ko man caa zakarahu mu waaru ci wa maa yadkuruun waaye waaru nag ilaa incha allah looy ba te yàlla foofu alu taqwa mooy moo yelloo raga joxe ragal yàlla wa alu maxfirati moo yelloo it joxe njëggal tabaraka wa taala suratul qiyamati saaru bés penc makka lay wàccee buur ne laa duma géñ bi yawmal qiyamati ci bés penc wala uqsimu duma géñ bi nafsi ci bakkan allawaamati bi dee yeddaa kon borom bu defee lu bon ay ahsabu ndax dafa joortu al insaanu nit ne ana lan najma duñ mën a boolee ñi idaamu ay yaxam ba dekkal ko balaa kay qaadirin danañu boole ay yaxam mbir moom ñu di way attan ko ala nu sawiya ñu yemale banaan waay baarama bal lu fi nekk yuridu dana bëgg fal insaanu nit yafjura muy def aw kaccoor amaamahoo ca kanam téere bi téere bi ñëw na wax li muy wax nga bëgg a def ab kaccoor ak weddi ca kanamam yasalu ma nga dem bay laaj ayaana yawmul qiyamati ana kañ la des penc buur ne fa iza bariqa su fekkee ne su fekkee ne ñorees na jëngaleef na jëngaleef na albasaru gis boo xoolee doo gis dara wa xusifa ñoreef alxamaru weer wa maanaam ñu dindig leeram wa jumia boole samsu jënt wal xamaru weer yi yóbbu leen yaqulu dana wax al insaanu nit yow may jin kero ñaayi masfaru ana fan lay jaar ba daw ana fan la daw waay ba kalla déedéet laa wasara déet wéeru waay di am ila rabbika jëm ci sa borom yow may jin kero al mustaqaru la sax waay wa dina bow dee na solo al insaanu nit yow may jin kero dina qaddama ci lépp lu mu jiitaloon ci àddina waa xaraaj lépp lu mu mujjee bal fi nekk al insaanu basiratun aji xam la ala nafsihi ci boppam walaw alqaa donte sànni woon na ma azrahu ay ngantam laa tuxarrik bul yëngal bi itam lisaanaka saw lammiñ li taajala ngir ngay gaawe bi ci moom inna alayna naka war nañu jam'uhu ak booleem wa qur'aanahu ak jàngam fa idaa qara'naa buñ ko jàngalee ibnu abbas neen ba alquran dañ wàcc yéen bi daan gaawtu di ko waxaat bañ koo fàtte yàlla ne ko déedéet daa tuxarrik bii lisaanaka li taajala bii inna alayna jam'ahu wa qur'aana